it la euh, ba muy génne yaakaar naa ne Oscar des vacances su euh, la njëkk a way euh, wala bokk na ci way mu njëkk way mu def it bu rëy mu génn fa jigéen ñi génn fa way lu mu way rek tabarkàlla réew mi dañ koy bëgg mais lii bu weesoo neex gi mu neex danañ ñëw ci événement bi bu weesoo son bi ni mu awee yoon nekk na it parce que way na ci wayu fort mais moo ko jaay waaw moom lañ njëkk a interviewé laaj ko ci son bi mu ne son bi waaw moom moom nee na moom bi mu génnee son bi. waaw moom sax dafa tiit. bëgg naa leen ñu am ko invité fii tey ndeysaan ngeen xam ne tey bi nuyool nga nuyu say mbokk d'accord maa ngi nuyu sama mbokk yi di nuyu sama mbokk séeréer di nuyu sama mbokk ala alpulaar naan kala biyo mbii mi wii mi mi salmini ma donc kala yeboo aussi émission xam ne salmini ma donc di leen euh, gërëm bu baax a baax ndax euh, euh, quand c' important rek c' est la ah, TFM ah. donc yàlla jàmm yàgg. may ko waaw fan nga jëm ci may ko <laughs> kon dafa mel ku ku tàmm ku tàmm génn maanaam ku yàgg maanaam. ku ñu tàmm di ko génnee parce que ñaari fan rek mu ñaari biir rek mu yenu sées bi génn. bu <laughs> dee jigéen kuy gaaw a fay lay doon. ci calen la ñu nekk suñu waa kër may seetaan. noonu la sam papa yàlla yàlla yërëm ko te xaari ko àjjana. ko waxee nii sax xamee ko noonu. déedéet si baat génn. sam papa génne génne ba daawuñu ma ñaan njekk bu may génn. Mhm. dañ may ñaanal njekk pour bu may dugg. du ma ñaanal yàlla mu gaaw génn waaw. bu may génn moom ñëpp xam nañ ni loolu loo miin la bu ma duggee dañ may ñaanal yàlla bu ma gaaw génnaat aj non gis di vraiment ci euh, émission bi na dafa neex quoi mm-hmm. fii moom vraiment waaw seetu bi la ñu toog gis sa bopp barke sëñ Bamba ñu ñu dundee de ku ci nekk ñun am nga ay bor ku ci nekk ñun am nga ay problème waaye bu ñu franchiré bunt bi dañ koy fàtte ba génnaat moom jaw mii am na koy woo léegi di ko fay ak ko même ba pare émission bi <laughs> nekk ci aja muy waajal événement boo xam ni événement la bu rëy di waajal événement boo xam ne réew mee ko bëgg mais lam ci doon def année yële passé yëpp ak année yi nga xam ne corona bi daf ñoo tënk nee na li mu raté ci corona bi daf koy dàbbali changé na fa nga xam ni fa la daan am indi na ko feneen place bi moo gën a yaatu yëf yee gën yi moo ëpp. Demba lan moo ñuy xaar ci sa anniversaire. waaw comme dap rek waaye bii day nekk euh, beneen euh, forma mhm. parce que chaque année ma ko doon def euh, Sorano quatre ah. années ma ma réussir ma ma réussir ko waaye Sénégalais jàpp ci. waaye ren nag vraiment ñu ñëw si ses comme si ses moom daanaka tàlleeku na. Mhm, mhm. et vraiment it gars yi taamu nañ ko aussi jege na aussi parcel ren. donc ak côté Cambérène bi nga xam nga donc moo tax. tax ñii sax doon xaw a euh, sonn mbaat mbaa yooyu pour bañ a ok bu ñu ñëwee si ses dañuy xam ni foofu mm-hmm. moo gën a jege te vraiment sénégalais yi nag ah ñu ngi koy xaar de ah, ah, waaw ñu ngi koy xaar de waaye ñu koy xaar koy xaar bi a réussir mm-hmm. ndax Parcelles Assainies ñëpp ko naw <coughs> ci yaram bëgg aaram te da cee yàgg te loo yàgg bëgg ko yàlla fekk la ci dama koy wax foo nekk dama koy wax foo nekk <coughs> gitaaram gi da koo gàddu ba am boos dëgg la bu dul dëgg dama wax ne dafa woyof rek bokk na ci xale yi daa xawee ci li muy def nit ak boo bëggee li muy def yàlla da ci teg loxo ah, boole ko yar tamit demba yaram dama koy wax fu fekk magam teg ko jox ko cër jox ko li mu moom daf may fekk fu ne spectacle waaye ba mu faa jóge mu jox ma billet bu doy te xa munoon na ni am naa ko du ma ko jox waaye ba lu moo génn fu lu mu xat-xat dina ma wër ni ma comme sama rakk ji yow jàmm a ngi sa ginnaaw bul am looy tiit ñu ngi fa du nit de ak ay ndaanaan donc mooy waajal le set ci mm-hmm, mm-hmm. waaw yow xam nga Aba <laughs> sa téléphone Aba ah. Aba damay ñëw ci ah, li nga wax léegi ci moom ci mm-hmm, way xam nga ndaanaan bu toogee foo nga yëngal ko li naan way yow kenn la ci nax orodi yande ko mbeɗo yande ñulam sami jolam mani jol waaw way laa topp mm, ah, mais xaw ma li muy wax mais loolu daf maa neex te xam naa ne ndaanan la mën na lool aba mm. bàyyi ma mm-hmm. ah li may wax xam naa ko <laughs> loolu laa bëgg mu wax ci dama ko doon yëngal pour mu dugg foofu eh, jawa déggal li sawdi yaade kamiyeto yaade mbeɗe salmina jolam balejo yomba karombal lii la lii la du ina dobana maaja ina geefa leydi ina ila heley leede ele leedeene oko wana njoola bale joo yomba karombal loolu Baaba Maal la oh. te daf may fàttali ndeysaan Oscar de vacances bokk na ci morceau bi ma njëkk a euh, presté euh, parce que saa mosaan am rek même bu ma nekkul ci concours bi. Mhm. dañ may wax ñëwal nga représenté. Euh, Baba Man yooyu quoi donc mooy profité di nuyu Père Aziz Samb. donc di ko siyaar ci na solo mhm. moom dafa wax li nga xam ni moom moo ko neex. mais man xam naa ni bëri naa ñu mel ni man. ñoo xam ni daf leen di daaneel ci yow nga woyal leen Cheikh Oumar Dara xam naa ni waaw. man de gi dama ma suusaama ne laa ma tàkk man de gi dama yeexa tara oh, jam na wale madina lay lay la la jam na wale madina jam na wale madina sariya sariya jam na ale madina won ko ale banjagara te kumaral futiyu tara korona mbimi tara mawdo tara tara sekumaru tara awulen ma lool tara tara tara seku umar tara mbimi sada molo moola jambaaro sada ñaago ñaaga dëkk rëkk ma taara taara taara ay waay taara Seexu Umar taara mimi sada mën a way daa mën bëgg naa bëgg naa ñu xuus loolu ci événement bi bëgg naa ñu waxtaan ci ñi mu ko tuddee bëgg naa ñu waxtaan ci partenaires yi ayca bu la neexee El Hadj Malick boo ñu ko mayee ñu jël ñëwaat léegi yeggal suñu waxtaan